waaw bi njëkkee gis ki sëriñ boobu génn ne Balla gi dafa feebar mm. wala Balla Gaye dafay dee mm. dama génn tontu ko dama ne ko waxoo dëgg mm-hmm. waxoo dëgg yaa nag bu tiit yow deewagoo léegi macha allah Wally Seck mm-hmm. deewagoo léegi de sëriñ soo di ñoo koy njëkk a dee ñoom Wally Seck mm-hmm. Wally Seck xam na ne ay fenkat lañ Wally Seck moo la gën a xam ne ñooñu di wax ñëpp ay fenkat lañ waaw Wally Seck moo ëpp bopp sax maa ñooñu waaw wàllu set public yi muy taxaw nii public yi muy taxaw di waaye. jinne yi dañ fay nekk nit yi guddi yi dañ fay nekk façon bu neex da ciy nekk. mu téye mu téye micro moom kese di waaye. Euh, jërë ngeen jëf ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen yéen ñu fa seetaan Yumbal Vision TV tey ñu dalal Cheikh Issa Ndiaye dinañ waxtaan moom ci ak moom euh, ci Balla Gaye nga na Tapha Tine euh, waxtaan ci ki xamante ne ni mooy Eumeu Sène digganteem ak Sa Thiès nga xamante ni Sa Thiès magam Eumeu Sène daf ko daan deux fois Sa Thiès dem jël combat bi mu nekk combat boo xam ne ñu bëri ñu jàpp ne Sa daf ko war a gagné mm-hmm. dinañ waxtaan maara yi faral di génn parfois di wax naan diw na koo na lu mu wax ba ci waaye sax yi nga xamante ne bëri moo jàpp ne yaayam bi génn àdduna moo ko xaw a sonal wala papam wala sax waxi sëriñ yi xamante ne ñoo faral di wax naan waaye sax bu amul sens mën na ñàkk bakkanam yëpp nañ ci waxtaan ah. parce que Cheikh Issa borom xam-xam la ñu bëri xam nañ ko bu baax a baax di jëflanteeg moom rawat na kilifa yi nekk bitim réew ah. Cheikh Issa ñu ngi lay ziar eh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wa général ñu ngi delloo ziar bu baax rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli يا همة الشيخ اعجب لنا في هذا المحضر وتعتفي bu ñu yàlla julli si yonent bi waa àdduna yëpp dañuy képp koo mu ngi teewlu yi mooy yëmbal vision yow wa rahmatullahi wa barakaatu macha allah am na solo trop Cheikh Issa gis na ni fan yëpp ñu ngi lay topp war a def ak yow émission ginnaaw bi Wally Seck nekk njàqare ñu bëri jàpp ne Wally Seck dafay génn dafay bàyyi way ndax gis nañ ne affaire bi li ko daal metti na ñu ngi koy masaw bu baax a baax lu gis ne it aussi am na ay maara yi faral di génn ba ci élection yi sax am na benn maara boo xam ne am na lu ñu ci wax mm. ñu faral wax naan diw dafay génn àdduna mm. loolu lépp waroon ci mm. parce que bu la yàlla mayee dafay baax nga partagé askan bi euh, naka nga gisee Wally Seck situation bi mu nekk balaa ñuy dem ci combat yi rabbil alamin laaj nga laaj ba am solo gannaaw loolu ñu ngi naqarlu bu baax ci lu yenn si nga xam ne ay sëriñ lañu ne leen dañoo xam xay boo yaay waaw ñi nga xam ne dañuy xam-xam lu xayba sax laa wax ndax te xayba xamuñ ci dara mm-hmm. ndax di bëri na ku naan xaybu te fekk ne wallaay xamul sax lan may xaybu mm-hmm. baatu xayba sax xamul lan may xaybu mm-hmm. ndax de xaybu ñaar la xaybu boo xam ne yàlla lay fàddu ak xaybu boo xam ne yow dangaa fàddu yàlla te ñaar yëpp koo xamul mën a koo xam lan may xaybu yaa ngi dégg xaybu min ka ak xaybu an ka ak xaybu ilayka ñetti xeet yooyu boo ko xamul a xam ndax xamal mën a xam xeet. Mm-hmm. kon su boobaa su fekkee da bëgg a wax ci xeet bu. il faut nga fen. Mm-hmm. waaye nag dëgër fit weesuwul. que mm-hmm. mën a jàkkaarloo àdduna yëpp ñëpp di lay seetaan. nga ne Wally Seck kat du gudd fan. wala Wally Seck dafay dee. dëgër fit weesuwul loolu. wala Wally Seck dafa dafa bëgg a bàyyi way. ngir lan ngir yaayam dee na papam dee Mm-hmm. dëgër fit weesuwul loolu ma ne yéen sëriñ soosu di wax ragal leen yàlla te nga xam ne dee ñëpp dañuy dee mm-hmm. ku way da nga dee ku ñàkk way di nga dee sëriñ dina dee jàngkati alxuraan dina dee ku jàngul alxuraan dina dee dee moom mm-hmm. du jaas dafa bàyyi kenn nag waaye ñu ngi ñaan yàlla nañu fi yàgg ñun ñëpp ànd ak wér ànd ak mucc waala sekk nag na ngeen ko ñaanal yàlla moo gën di ngeen toppee di nga ngawti ngawti di wax ci moom guddi ak bëccëg wax ji nag man gisoo ma lu bëgg bës. Hmm. bës yéen bu jëlu yéen yi. est-ce ñoom ñoo tiital Wally Seck ba Wally Seck instant yi ma stable pour mën a wax sax. Eh, ñoom mën nañoo tiital Wally Seck. Hmm. Wally Seck xam na ne ay fenkat la. Hmm. Wally Seck moo la gën a xam ne ñooñu di wax ñëpp ay fenkat lañ waaw Wally Seck moo ëpp bopp sax maanaam ñooñu waaw Wally Seck public yi muy taxaw nii public yi muy taxaw di way. jinne yi dañ fay nekk nit yi guddi yi dañ fay nekk façon bu neex da ciy nekk. mu téye mu téye micro moom di way. muy mm-hmm. guddi muy bëccëg. ak fu ne mm-hmm. lay dem di way. Mm-hmm. Ah, réew yi muy dem Gambie gi nga ne moo gën a daase. taxaw ak seen public di way. nga foog ne Wally war a def soirée xanaa ñan ak ñan ñooy ñëw. seytaane yi dañuy ñëw jinne yi dañuy ñëw njuuma yi dañuy ñëw. kon kooku sàmm seen bopp dina mën loolu. kon sëriñ si di wax bëri na ñoo xam ne ñooy wax te Wally Seck am moo leen ëpp bopp fuuf. Wally Seck moo leen gën a xam lu ñuy def Wally Seck day jàngal Alxuraan Wally Seck day julli Wally Seck day saraxe Wally def lu baax Wally Seck day dimbale. te na màkk sax. dem na màkk te day day dimbale day def mhm. si ñoom ñii di wax naan ay sëriñ lañ ñu si bëri ay caaxaankat képp lañ xamuñ sax lu ñu dalee démb. macha allah kon Wally bul tiit bu ragal. Mhm. te yaay ji nga xam moo la dëdd yàlla moo ne man foofu lay yem. yëfam mhm. foofu lay yem. deekat bu xasee ba ñëw moom dégg amatul. amatul yéex saa jaa ajaluhum mhm. laa yastaaxiruuna saa'atan wala yastaqdimuun mhm. sa digg bu xasee ba ñëw digg bu ñëwee amatul yàlla may ma may ma ma organiser sama ginnaaw ma ma def ma istixfaar may ma ma julli may ma woor may ma fàttali amul may ma bàttali amul heure mhm. bi bu jëlee rek da dee te fu mu la fekk foo ngay dee yaa ngi kon dee mënta ñàkk laa di seet bu tiit yow deewoo léegi macha allah. Wally Seck. deewagul léegi de sëñ soo di wax ñoo koy njëkk a dee ñoom. Wally Seck deewagul mais Wally Seck moo leen ëpp sax njëriñ ñoom. Mhm. Wally Seck moo leen ëpp njëriñ. Mhm. ñoom lañ fi nekk lu nax nit ñi lekk seen xaalis ñooñu di wax loolu. Wally Seck naxul kenn. Mhm. dafay dem tëgg soirée bu dam cay am mu bokk ay jaam yàlla. jaam yàlla yi seen njaboot dund. Wally Seck ñaata ñu lay dund daa xam nu mu toll. bëri na ah ñaata ñu ñooy lekk si ñàkkam kon kooku lu mu jëriñ réewam dañ ko war di ñaanal. man dama koy seetaan sax di ko yërëm barki alxuraan kay barki Cheikh Ibrahima Niass. naa ci ñëwaat ak yow ci loolu dama koy seetaan di ko ah. yërëm. nga xam ne kii maanaam àdduna la yem. Mm-hmm. ay nit ak yaakaar ku ay nit yaakaar dañ ko war a ñaanal yàlla. waaye chaque jour suñu xëyee jël seen làmmiñ rek tiimale ko ko di wax làmmiñ baaxul. Mm-hmm. beneen jàmbur waaye Wally Seck deewagut du léegi de. Wally Seck deewagut du léegi. parce que waroon a dugg ci même Balla Gaye sax. Mm-hmm. yu noonu waxoon nañ ko fi. ah waaw waxoon nañ ko fi. biñ ñaari sëriñ ba ñett waxoon nañ ko am na ñoo xam sax sama sëriñ lañ ko waxee woon. waaw euh, Balla Gaye ginnaaw bi ñu waxee loolu ci moom dinaa ñëw ci Balla Gaye. Mm-hmm. kaawam dinaa ñëw ci yeneen ak yeneen. Mm-hmm. mais balaa may ñëw ci yooyu mbirum seet laa doon ñu waxtaanee. waaw gis parfois nga seetal nit wax ko loo xam ne daf koy jaaxal. mais nag ñu bëgg na Cheikh Issa kilifa ëpp kilifa yi la ëpp lu ñu jëflanteel la lool. ak yan façon seet ma jëflante ay coono yu ndaw yi xale yu ndaw yi. Mhm. nekk bi di la sonal man du ma jëflante moom. Mhm. man sama seet su ma demee bay toog pour seet ay kilifa ñoomee woo ma seetal mhm. seen avenir maanaam daan nañu dañuy def. dañuy dugg projet yi ñuy sumb. ba xam dina sotti wala du sotti. man ma seet ko seet gu wér. bokk la seet yi nga xam ne day toog di waxee xalaatam di fen rek di tag man du ma def loolu. da nga ma seetal ma nga toog déglu ma nag. Mm-hmm. man su ma nee su ma nee dinaa la seetal dinaa la seetal da ngay toog déglu ma. Mm-hmm. su ma seetee ba pare woo la téléphone su ma la bippee dama lay woo téléphone. Mm-hmm. wax la li ma gis si seet bi yëpp benn par benn A ba wax la li ngay sarax. nga dem ma dem. nga dem ma dem soo ñaanal ma ma ñaanal la. Ah. waaye man en général su ma la seetalee wax la li ngay sarax boo ko defee jëru ngay ñaanlu saa yi faj. ñu bëri xam na la ci loolu mu nekk point bu am solo yaa naan macha allah Cheikh Issa moom yaakaar naa kenn dootu ko présenté askan que mbirum seet jàpp nañ ne ba muy gën a nekk jeune mhm. na sax yàlla moo dem ba benn instant sax mu toll fii ñu bëri digal ko du talatu ko. Mhm. dañuy waxtaan ba tey sànq lay tuddal Balla Gaye 2. Mhm. am na combat ak Tapha Tine. comme ni ñu waxoon sànq ci Wally Seck rek am na ko ma a génn du ñaar ba ñett. annonce ne Balla bu amul sens nangam ak nangam ba nga gisee loolu. nan la def ak combat Balla Gaye ak Tapha nag nga ko gisee. waaw bi ma njëkkee gis ki sëriñ boobu génn ne Balla Gaye dafa feebar. Mm-hmm. wala Balla Gaye dafay dee. Mm-hmm. dama génn tontu ko dama ne ko waxoo dëgg. Mm-hmm. waxoo dëgg. yaakaar naa mi ngi njëkk am sax deux mille vingt deux. waaw waxoo dëgg. ñi waxoon loolu anam Balla ngi dund day gën a dund. day am jàmm loolu baaxut. bëgg bës. warut a tax mukk nga taxaw ne diw day dee. Mhm. gis nga kii dee suba yàlla rek ko xam. Mhm. amul benn milieu boo xam ne yàlla may na ko tey. Mhm. bu mën a xam ki war a dee suba. si ñu may gis fii nii si internet bi ñuy wax. amul kenn ku si xam xam-xam sax amuñ ko. amuñ sax xam-xam amuñ baatin ba war a mën a taxaw naan diw day dee suba. Ah, te lu ma gën a jaaxal. duñ ko wax si ñeneen dañuy xool ki gën a siiw rek ñu ne day dee suba wala dangam naka tam. problème moom ñu siiw rek la ñuy xool xool ay nangam nangam ku ne ñu tudd. Mhm. ah nangam dina am. wala mhm. wax yow nit ñi yaakaar nga nekk kilifa boo demee bay wax. Mhm. day wax loo xam ne day dalal xelu nit ñi. yaa ngi dégg wax loo xam ne jàmm lay jural doomu aadama yi. waaye heure sooy wax assisa dina am jiw dina dee nangam dina am yooyu baaxul nañ bàyyi yooyu kilifa du defee du waxee noonu Mm-hmm. ak beneen waa jooju sant xaw ma naan Cissé xaw ma Cissé la sant. Mm-hmm. xaw ma Touré la sant. Mm-hmm. yaa ngi dégg taxaw ne ah, élection yi di ñëw am na koo xam ne. am na si koo xam ne léegi mu dee neuf jours. waaw dafa mel man gis naa vidéo am ko wax ne neuf jours. ah ko gis. ci élection dara gisu dara dara gisu ko. lu mu reeree démb ko. ah <laughs> moom daal nee balaa neuf jours kooku dina génn àdduna. waaw su xamoon dara xam nga li nga day tudd tur. ne diw dina dee ñu xam. ah waaye moom wax na waaye. tur de waaye nag élection yi di ñëw am na si koo xam ne neuf jours la ko dese. li mu ko waxee léegi léegi man neuf de te waxu dëgg. Hmm. kenn deewul te kenn si kenn si ñoom du dee léegi. incha ñoom lu ke lu nit wax rek moom moom ma attaqué ko. maanaam hmm. boo leen nangam nga naan ma ne doo am te hmm. am. na solo bàyyi loolu di yóbbu fiti nit ñi. dañ bàyyi di nappaate te lu ma gën a jaaxal dinañ wax si ñi nga xam ne siiwul. siiwuñu. te yow da xool ku siiw rek nga wax ci moom ngir lan ngir bëgg bës. Mhm. bës mooy lan ab sëriñ looy doyee bës. Mhm. looy doyee loolu. Mhm. looy doyee looy doyee loolu ay ñu si bëri ñoo fay boo fayee da ngay bëgg a wax waxu caaxaan pour dañuy xam yaakaar. am na solo sanq yaa ngi wax lu am solo balaa ma ñëw nag ci Balla Gaye wax nga ci Balla Gaye mais combat am diggante mag Tapha Tine. combat bi daanaka ñëw na. mais balaa ma lay laaj ci combat bi parce que Balla Gaye dafa am ci ay naqar yu mu gis na ne depuis mu daan Yaxya Jóob Yékini daan Tapha Tine 2013 mm-hmm. am yeneen combat yoo xam te ni mm-hmm. ay victoire taqale la ci am benn victoire ba leer la ci am mooy bi mu daan Modou mm-hmm. kon am na tey Tapha Tine nga xamante ni Modou Lo lu ko bëggoon jox ñu bëri jàpp ne Modou Lo daf ko ragal moom jël na Tapha Tine ak situation bi mu nekk balaa may dugg ci loolu dama bëgg ñu waxtaan ci noob c'est ça di def yoo xamante ni li doon wax sànq di jëflante ak ay yu mag a mag rawatina pour tasxiir ak noob lan ngay liggéey ci loolu waaw loolu dama ci liggéey lu defaat wàllu tasxiir. mooy tasxiir tubaab. jàpp tubaab. tubaab dama koy def. Mhm. jàpp naar dama koy def. Mhm. lépp loo xam ne wàllu noot la rek man dama koy def. Mhm. te noot yi doy waar lay def noot waaw yu doy waar rek laay def man. waaw mais ñu bëri na laa gis ne c'est parfois nit dafay euh, bëgg a takk jabaru jàmbur. kenn di génn kenn ba war kaa. takk keneen ñëw yàq diggante bi. ñu gis ne du la woowee téléphone wax la ko lu gaaw gaaw diggante boobu du am. loolu nan la nan nga def bay liggéey loolu. loolu la ñuy tasawufaat. tasawufaat ah, waaw loolu lu jafe la ci. waaw wëlbati benn affaire li war a am léegi nga wëlbati ko léegi. <laughs> ñi ko mën bëriwul la. loolu baaxul baatin noo koy mane. Mhm. baatin ak bët bokkuñu. mais est loolu nag jaaxal nañu bëri de est nekkul loolu dafa ànd ak ay xërëm wala ay affaire ah, yàlla moo gën a gaaw xërëm. ah en tout cas daal jaaxal nañu bëri yàlla moo gën a gaaw xërëm moo dañuy dem si bouddhiste yi ak fidis yi dañoo tur yàlla moo gën a gaaw luy gën a gaaw. doo gis nga déclaré woon ne képp koo xamante ne nii. Mm. yaa ngi takk soxna koo xamante ne nii. Mm. soxna ki ngay takk. Mm. kooku daf ko bëggoon takk yow nga nangu ko ci moom kooku su ma woowee ah, du am. loolu foo ko teg. comme ça nga nekk benn xale bu jigéen. Uh-huh. dem ba koo takk am ku doxee suuf. Mm-hmm. bëgg laa suuf bëgg ko mm-hmm. yaa ngi dégg bëgg koo takk takk googu du am takk googu du am. lu waral loolu. ah dara du am. du am. ci baatin la. ci baatin ñu continuer ak yow ci tafaatin. macha allah. tey bu noo nekk xale bu jigéen ay mm-hmm. ko lu nekk. sonn ci moom fayal ko formation ko place. Mm-hmm. dem ba war koo takk mu xëy rek bëgg daa war mm-hmm. mu xëy benn saay saay jaar bi liggéey ko. bëgg ko yomb lool. day yomb bu ñëwee ma ma jëlaat ko joxaat la ko delloo la ko. am na solo. saa ñu doon wax ci Balla Gaye point bi ñu ci defee ci Balla Gaye mooy digganteem ak tafaatin. ginnaaw euh, bi ñu ko waree jox yeneen combat ku mel ni Eumeu Sène bu bañ léegi rakam jël na Eumeu Sène mhm. mais Balla Gaye dafa dem taamu Tapha Tine mi nga xamante ni Modou Lô daf ko fee bàyyi mhm. donte daanoon na ko 2013 mhm. naka nga gisee combat boobu combat bu métti la bu métti a am mu ma si mais moom neen day ñëw rek fël waa ji mu daanu déedéet yombee noonu du yombee noonu du yombee noonu wante yembe na baala góorgóorlu. Mhm. defaruwaat la gën a la defar bu baax a baax a baax. Mhm. xam ne am nga combat nag. waaw ak mhm. nit ki ay at ay at ko. si diggante bi mu dem na defaruwaat. yaa ngi dégg yokk dooleem. daan yokk cere dara ñeex. macha allah donc su ñëwee ay du yomb de. ay mais nga gis ne Balla Gaye ñu ngi ko doon jox Eumeu daan na ko deux fois mais rakku Balla saa kees man na si am man na si am sens. mën na ci am chance. ci bu xamee fu buy jaar walla bu toogee. bu amee ñaan bu amee ñaan. mën na see mën na see mën na ci génn. mën na daan Eumeu bu baax ak koo a daan. ak Eumeu ni mu def magam. bala loolu weesu na hmm. loolu na man lii ñëw laa lay wax. ah loolu de Cheikh Issa moom lépp loo wax rek euh, en général. Hmm. donte sax yàlla buur la waaye moom <laughs> macha allah yàlla may na ko daal. Hmm. mais dañuy continuer ak yow. Sénégal actuellement jaxasoo na saagakat yi bëri na nga gis parfois da nga gis saa ñu ne ana diw ñu ne dof na ana diw an ñàkk kaaraange gi ci réew mi. waaw dof yu bëri nag ñoo ko teg seen bopp. dof yu bëri. ñu bëri bi ñoo ko teg ñu bëri ñu alal ko ñoo ko teg seen bopp ndax si biir nit ñi de. Mhm. ah kon maanaam doomu aadama nekk ku la neex nga saaga wala nekk ku neex nga saag ko wala nekk ku ko neex nga xas ko. Mhm. nekk ku ko neex nga wax ko lu ñaaw koo gis wax ko lu ñaaw koo gis xas ko moo tax dee di bëri. kon su ma déggee maanaam parfois parfois natu mën a daal doomu aadama. Mhm. Euh, fekk moom moo ko teg boppam. dafa wax dafa saag ku mu warul saago yu mel noonu. loolu la ñu wax laal laalaake. mais loolu waxi maam la est-ce nekk fu ne di saaga mag ñi di saaga ñi anañu. mais jeunesse tey bi est gëm na loolu ay ay maanaam. Euh, laal laalaake yooyu noonu. non am na ñu ko gëm waaye ñu ko gëmul ñoo nekk si jafe-jafe ñoo nekk si problème. dama gis nga li fi mag ñi bàyyoon ba léegi moo fi. Aline Sall sunuy 400000. ñu gis ne Assane Diouf dafa génn def benn live. Mhm. ak Adamo ak keneen ak keneen. Mhm. muy avant mu def live bi sax gis na mu def benn vidéo di jéglu Alioune mhm. parce que moom mooy seule personne bi njëkk a taxaw ne Alioune Sall. Mhm. dafa lekk suñuy 400000 kenn ku nekk am na ci moom 400000. Mhm. moom nee na Ahmed moo liggéeyu Guédiawaye mais Alioune Sall la mu fa def kenn def ko fa maanaam dafa dem ba benn instant bu door a xam ne moom lan doon wax nekkul dëgg. waaw ah, moo tax doomu aadama. Uh-huh. ngaa wax da ngay seetantal li ngay wax. Mm-hmm. yaa war a wax wala bëgg wax bu wax la warta wax. Mm-hmm. lépp looy wax bala nga wax na ko seetantal ngir ëllëg. ngir ëllëg waaw. Mm-hmm. te doomu aadama li ngeen ci woon aw goo si profil la li alxuraan in jaabum bi nabayin mhm. fa tabayyanu fa tabayyanu ab kàccur bu ñëwee lay wax la benn affaire da nga koy mhm. da koy leer mooy dem euh, vérification mhm. yaa ngi dégg vérifier ba mu leer nga door a wax quatre cent mille quatre cent mille waaw kon kon xaalis Sénégal yëpp la jël xanaa <laughs> loolu dafa xaj ci moom loo xanaa Alioune Sall dafay noonu bay jël suñu xaalis yooyu Ahmed Aïdara maa ngi wax loolu chaque jour ma ko daan wax anam na génn ah moom kay waa Guèye ñu koy xaw a sax ndax ñàkk liggéey. liggéeyul dara kay. liggéeyul dara mais dafa am benn point boo xam te nag. ci yow la jëm. Mhm. mu nekk lu ama am sol loo xam te ni yaakaar sax bëggoon ciy wax. Mhm. parce que xale yi ñoo ko yor. Mhm. mais comme yaay ndeyu mbili ji. mënul ñàkk ñu waxtaan ci. mu nekk garab yi xamante ni ay garab traditionnel la. yaa ngi koy liggéey ci sa loxo. di ko jox askan bi ñu koy jëfandikoo te kenn mësul dégg ne Cheikh Issa moom a jox lii te fajuma. mu nekk ballonnement. hémorroïde ndoxum siti ba ci garabu ngóora hmm. ak li faj estomac hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ci biir garab bi askan bi dañuy bëgg nga leeral leen ko donte sax du bëgg ñu la ci laaj ndax xale yi ñoo ko yor mais loolu lan ñu may foofu waaw loolu dañ si sant yàlla bu baax hmm. lu ñuy wax te yaa si cabinet Taysir bi Taysir nag bu ñu ko waxee kilifa bu mag moo tuddee Taysir Taysir baat bi xam nga li muy firi Taysir Taysir mooy yombal lu jafewoon mu yombal ko ku feebaroon mu faj la bëri na ñoo xam tey bi feebaree yenn feebar yi. Mm-hmm. dem fu nekk si hôpital yi mën nañoo wér fii lañ wéree. Mm-hmm. leen faj du nekk dara lu yomb lay doon. Hmm, lu yomb yomb lay doon. Mm-hmm. kon sant yàlla. sant yàlla. nag garab bi. tey bi li muy faj mooy koo xam ne am hémorroïde. hémorroïde hémorroïde nekk sa biir. wala hémorroïde bu nekk si biti daf koy faj. koo xam ne ndoxu si daf la su naan yàq sa di sa karaw gi. lakk sa yaram bi. lakk sa deret yi booy mm-hmm. sëy di gaaw yegg ba tey daf koy faj koo mm-hmm. xam ne tey maanaam bu guddi booy sëy benn yoon rek nga mën a sëy mm-hmm. te bu jëlee garab bi mën na laa nga sëy ñaari yoon ba ñetti yoon ci guddi te da ngay am kattan bu baax a baax a baax a baax yaa ngi dégg même su fekkee ne sa ndoxu mën yi dafa dem ba xeebul oyof loolu walax caa ngi dee su jëlee garab bi di koy naan incha dangaa wax sànq ndoxum siti même ndoxum siti dama bëgg nga leeral foofu aussi mm-hmm. parce que dafa am ñoo xam seen ak seen xar-xar loxo yi yëpp da koy dindi waaw ah, ndoxu siti mooy def loolu ndox si day dem ba lakk sa weey mm-hmm. sa tànk yi muy xeeñ di génn ay ndox même problème karaw yi aussi waaw ba dañoo ndoxu siti moo ruusal seen karaw mu jox mm-hmm. am na ñoo xam ndoxu siti sax moo lakk seen bët yi yaa ngi am na ñoo xam ndoxu siti moo tax mënuñoo am doom am na ñoo xam ndoxu siti moo jàpp maanaam ndoxu siti moo jàpp seen awra yi ba jeexal ko tàkk ba mu néew mhm. ba wàññi ko mu jeex tàkk mhm. yaa ngi kon ndoxu siti ak hémorroïde ñaar yooyu moo gën a garaaw si àdduna te ñi xam ndax hémorroïde mhm. nit ki tax muy mën am kattan pour mën a sëy normal yaa ngi foo mu ñàkk hémorroïde waaye fekk dafa nekk si biir balonde sa biir bi kattan bi nga war a am loolu daf si joué lu bëree bëri bëri bëri bëri daf si joué lu bëri moo tax hémorroïde dañ koy gaaw a faj waaye boo ko yéexee faj day dema dema dem dem ba génne di nga mooy benn bul. ndax jot leen jaf na. léegi bul boobu ah. bu demee ba yàgg fa nag c'est trop tard. c'est trop tard léegi lenn nga opéré ko. Mm-hmm. te bëri ñoo xam ne bi ñu ko opéré ba léegi amul amatuñ amatuñ jàmm. Mm-hmm. kon li la li ngay def mooy jéem koo traité. traité boo ko traité si cabinet yi incha allah une semaine laa la may hémorroïde bi fu mu nekk si sa yaram dafay dañ. ndax jot leen jafe na aussi. ñoo jot ñu jafewul. jafewul eh, woote si numéro macha allah woote si numéro ñu tegtal ba nga yegg si sa ñu nekk Europe aussi parfois dañuy jàmbat ci ñu bëri ci yeneen maaraay wala yeneen euh, docteur traditionnel bi. Mhm. da ngay joxe sa xaalis mais pour nga jot sa garab dafay jafe. ndax yéen loolu dalu leen boo ko man mhm. loolu daluñu suñu cabinet bi. Mhm. soo dugalee xaalis bi léegi. fekkee am mbokk ñu joxal la ko léegi fekkee am nga say pay ñu yóbbu ko léegi. buy dugg rek ñu yóbbu la ko. waaw xaalis buy ñëw rek buy dem xaalis buy dugg ñu. day weesu loolu daal. soo bëggaatee ñu dara sa xaalis. am na solo daf si am saay-saay yoo xam ne dañoo nekk si internet bi. Mhm. di pirater sama compte yu bëree bëri bëri. di ko mhm. di ko pirater di pirater samay vidéo di di ne man la diw. Mhm. dañuy joxe sax ba joxe sax Issa Ndiaye. bu fekkee du si dëkk. di rey nit ñi di def lu leen neex. kon ñooñu it ñu ngi leen di dénoncé bu baax a baax a baax. ñu wax daal képp koo xam ne am nga tawatu yaram. da jëm si ndoxu siti hémorroïde ballonnement ulcère yaa ngi dégg ba si cancer bi. ak mhm. jabet mhm. boo ñëwee fi ñu faj la incha allah. macha allah tey danaa am bu gàtt la. Mhm. awra buy dellu awra bu tuuti wala bu sew. fii ñu dimbali la jox la garab boo xam ne soo ko jëlee incha allah léegi nga am na solo comme mooy Cheikh Issa Ndiaye dañuy continuer Cheikh Issa. Euh, yaa ngi wax sànq ci mbirum làmb yeeg yooyu. mais kaaraange aussi askan bi dañoo manqué ah, kaaraange. yaa ngi faral di joxe ay kaaraange yoo xam te ne soit mu nekk sa sangat wala ay yu ñuy takk. yan nga ciy liggéey. waaw kaaraange keroog wax naa ci lu doy waar. Mhm. mu yëngal dëkk bi lool sax. Mhm. waaw wax naa kaaraange boo xam ne kay jamakin. Mhm. kay fasa jamakin dafa nekk turi yàlla bu doy waar. tur boo dafa ëmb lu doy waar. ci kaaraange. su fekkee da bëgg ku la laal wàcc. wala ku la liggéey accident. wala ku la liggéey gumba. wala ku la liggéey dee. ku la liggéey tàggoog sagoom. fexeel nga jëfandikoo secret bi ñuy wax kay fasa jamakin kay fasa jamakin dañ koy liggéey suñ ko liggéey ba pare mm-hmm. bala ko xay xay waaw juróom-ñaari bi wala juróom-ñaari xay yu bokkul xëy nu dem sunguf lay doon. waaw juróom-ñaari xëy yu bokkul la ñuy si ay garab. Uh-huh. da ngay dem si garab gii nga xas fa juróom-ñaar boo xasee da nga jëm pusa yi juróom-ñaari pusa yaa ngi dégg. Mm-hmm. soo paree nga jël sunguf yooyu yëpp daal di dëbb. boole ko li ñu ko war a boole boole ko saafara. Mm-hmm. saafara ak fa sa jabar jël nga sangoo ko boo ko sangoo yi ku la liggéey wàcc ku la liggéey de su fekkee daa nekk si bërëb si entreprise yi dem mbooloo ñu lay xeex xam nga boo jiitee mbooloo ñii dañuy dem si sëriñ si di la liggéey wala nga nekk aw woykat bu mag ñii dañ lay liggéey baataa sëriñ bu mag sax taalibe dañ lay liggéey mm-hmm. baataa président gars yi dañ koy liggéey nga nekk ministre ñu nekk sa ginnaaw dañ lay liggéey mm-hmm. ngir bëgg a jot si yow léegi nag boo bañee liggéey di yegg si si yow jëfandikoo kay fa sa jabar kenn ku sa jame kenn ku koy dégg doo xam lan la waaye dama lay leeralal doom yi am na juróom-ñaari doom kas la woon yaax la sun fax kalamun chakaalum jamaaw makkalum kalaw léegi nag am na rawaxaan nag doom yi ñëw na waaw rawaxaan ba wax gën a garaaw bu si nekk am na lim bu ñu koy bind suñ ko bindee ba pare def ko saafara nag xooj ko door koo nag gas pax bu mu xóot suul saafarasi ba mu am juróom ñaari fan nga génne ko sango ko bisatu paate général mm-hmm. ku repp moo lay laal mm-hmm. barke Cheikh rek mooy dugg mm-hmm. képp koo xam ne bëgg naa mucc dina la teg am na solo ko mooy Cheikh Issa Ndiaye sunu dernier euh, kàddu bokk na ci samp doomu aadama waaw ah, loolu dama koy def voilà samp nit si wàllu alal. ah samp nit si wàllu bayre. Mhm. samp nit si wàllu ubbeeku. loolu yëpp dama koy def. dañu gis parfois ci nekk ay mbokk yu bëri am wala ay xarit yu bari am. ñu mhm. gis saa gis si gën a solo. Mhm. dem dugg ci roq ñu ko samp goo xamante nii xaalis day taxaw ci loxoom chaque jour. day am xaalis. loolu nu koy defee parce que askan ñu ngi koy laajte. loolu dafa am dinaa ci maye dara lu ndaw nag muy alxaariatu. alxaariatu wax naa ko keroog muy cool yi bëri na ci. alxaariatu képp ku ñàkk xaalis ba dara. fexeel dem ci daara ñu bindal alqaarixatu gën a aaya bu nekk ñu bindal nasru minallaahi wa fatun qarib mhm. ba mat onze fois mhm. su paree nga wut li nga xam mooy timin timin bu bees mhm. nga baxal ko boole ko moom di ko sangu insha allah di nga am xaalis te nga ubbeeku waaye nag su fekkee da ngaa bëgg nag ubbeeku koo xam ne total la samp ci wàllu alal ala kulli da nga ñëw fii seet ñu ñu defal loo xam ne fatxam na fatxam bu doy waar fanaan nag bër nañu si wax te xamuñ lan mooy fanaan mm-hmm. fanaan yombul de <laughs> fanaan lu doy waar la mm-hmm. waaw secret boobu lu doy waar la mm-hmm. am na solo daanaka li amoon ci kàddu jeex na wala ci waxtu jeex na euh, fi lan ngay tàggatoo ci sa diggante sénégalais yi ak naka nga si situation sénégalais yi ak wax yu ñaaw yu bëri yi ak parfois li nga waxoon daal nga résumé ko pour ñu mën a tàggatoo. waaw ni ñuy def daal mooy Sénégal li ma ci gis général jamono bii doy na waar. Mhm. parce que boo xoolee maam dëgg sax nit ñi bëggatuñ ko koy wax. Mhm. tey fi ne boo àndee nit sax di wax ci moom lu baax ñu ne war wax ci moom lu baax lu bon nga war a wax ci moom. Mhm. boo nee général sama xarit la sama waay la ñu nga dégg ñu nitu intérêt intérêt rek la ko toppee. te fii yàlla lépp intérêt la. Mm-hmm. julli gi nga julli intérêt la. Mm-hmm. woor gi nga woor intérêt la lépp mm-hmm. intérêt la. yàlla nga koy jaamu ngir lan ngir bëgg a dugg àjjana. yaa ngi kon ni lépp lu muy def rek intérêt la fi nekk waaye def loo xam ne sa ci. yaa ngi dégg amul dëkk bi daal fi ñu doy na waar nit ñi nit ñi bañ nañ dëgg. bëgg nañ lu bon. bañ nañ dëgg bañ nañ dëgg. bëgg nañ lu bon foo fekk nit ñoo ngi yàqante. ñu ngi waxante lu bon ñoo ngi safarante ñu ngi fayante. ñu ngi jëw ñu ngi xas ñu ngi tuumalaate loolu rek ci lañ dëkk ku la yawin rek ñu ngi ci loolu. macha allah dëkk bi nag fu muy mujjee mooy wàllu élection yi. élection yi moo ko fàtte woon élection yi. lëmbee na réew mi jamono bi. ak dialogue bi. ak dialogue bi. <laughs> dialogue nag mën na ñàkk yeneen saa salaam yàlla dafa ko waxoon ne ko booy dugg si mbir na nga diisoo. Mm-hmm. na nga diisoo say gaay yi. Mm-hmm. diisoo saaba yi xam nga yéen ci bu ko neexoon rek xëy def lu ko neex. Mm-hmm. waaye yàlla def na ko déedéet de. am na am nga am nga ay saxaaba. Mm-hmm. saxaaba yi soo faut nga waxtaan ak moom. Mm-hmm. su ngeen waxtaanee ba pare nag ba teg euh, li ngeen xam ne war ngeen ko teg. Mm-hmm. mbiri ngeen jébal ma wa saawir fil amri. Uh-huh. fa idaa xasamta. Uh-huh. tawakkal ala llaahi. wa amruhum shura. waaw wa amruhum shura baynahum dégg loolu la ko wax. léegi nag kon Macky su fekkee woote na dialogue ñëpp war a dem wuy ji. ñu doog waxtaan. Mm-hmm. ne waxtaan bi nekk ne mag yi da leen imposé ne lii laa def force déedéet. ah du ñu waxtaan la. Mm-hmm. ñëw leen ñu waxtaan kenn ku si nekk am nga si xeer. Mm-hmm. ku dem waxtaan man mii sax damaa amoon accès su ma amoon accès damay dem. su ma amoon accès damay jox ma micro ma wax li ma war a wax. macha allah lu dëgg. ndax si réew mi daa bokk. su ma amoon pour dem damay dem su ma demee wax li ma war a wax ci réew mi. kon ku ne bëgg nga réew mi. yaa dégg réew mi la ñor doom bi réew mi la ñor jàmm réew mi la ñor suñu wootee ne ñëw leen yaa ngi dégg ñu waxtaan da war a dem. Mhm. waxtaan loolu mooy yoon. Mhm. wala soo demul nga yebal say ndaw ñoom ñu dem waxtaan. Mhm. su ko a yow si waxtaan bi nga bokk boo demee yow nga génne sa li ne ci yow nga wax ko li ñu bëgg nga wax ko ñu déglu la loolu mooy yoon. waaye soo demul nan lañ lay déglu da ngaa war a dem wala nga yónnee. wala nga yeble loolu mooy dégg macha la am na solo trop léegi nag Mati moom. sa jaana wàcc na def nga li nga war a def. nee nga le deux la wax lay dem. le deux waaw. Ah, waaw yal yàlla defal ko jàmm. macha yàlla defal ko tawfeex defal ko taysir. Mm-hmm. yàlla sàmm ko aar ko taxawu ko. waaye balaa dem si mbéyum moom nañ fexe daal mm-hmm. a dem. <laughs> bu lijjanti woon ne koroj. teg ko fu wóor daal teg ko fu wóor door a dem. Mm-hmm. bu ko may dina doy waar. dernier cadre aussi. Macky nag ku bëri yërmande la de ku bëri yërmande la mais dafa am loo xam te ni askan wi ñu ci commencé dute. parce que dañ ne Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko. Ah. mais dafa am ñoo xam ne dañ ne. Ah. bés bu Jomaay faloo. Ah. Sonko mën na am problème parce que ñaari kuy duñ bokk banque. loolu boo ko déggee lool est que. waaw ba tey naa ne xam nga àdduna dafa doy waar. ñaari nit bu ñu wut amaguñ. mën nañoo nekk xarit waaye bés bu kenn nga xamee. mën naa mën naa mën xaw a doy waar nañ ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm. ñu kon boog yàlla na yàlla def jàmm lan ngay tàggatoo. yàlla yàlla def jàmm si réew mi rek. Mm-hmm. yàlla yàlla def jàmm si réew mi yàlla jàpp fa seetaane. teggi mboolem jafe-jafe ak gàllankoor yi mm-hmm. yàlla may fi naataange mm-hmm. yàlla sàmm ñu aar ñu mm-hmm. yàlla saxal fi suñ kilifa diine yi ak suñ xalifa général yi yàlla yàggal leen fi ñoom ñëpp taxaw leen ziar ak si bàttin in uriidu illal islaaha mastata'tu wa maa tawfiiqi illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib